أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته أجمعين لي موي تيري بتود المقدمة الحزية في نك لا تامبلي بسم الله الرحمن الرحيم alhamdu xeeti cant yépp lillahi ajee la ñeel yàlla rabbil alamina kay borom mbindeef ya wa ashhadu te maa ngi seere ne an naka lay mbir laa ilaha amul benn booru illallahu ndare yàlla waxdahu moom rek laa sharika amul jann aji bokkaale la hoo ñeel ko wa ashhadu te maa ngi seere ne anna muhammadan naka muhammad abduhu jaamu bi yàlla wa rasuluhu tey ak yonanteem mooy ndawam salla yàlla na dolli tedd nga allahu yàlla alayhi ci moom wasallama te mu dolli ko wóolu waxala saairil ambiyaay ak ci mboolem ñañu solo wala mursalin ak ñañ yónni wa ali kullin ak ñooñ kenn ku ne wa taabiina ak way topp ña lahum ñeen leen bi ihsaanin ànd ak rafetal ilaa yawmi diini ba bis penc sëñ bi taalif dafa tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim mooy tàmbalee tur yàlla mi nga xam ne mooy xéewal xéewal yu matale yi ak xéewal yu jagoo ci ñenn ñi mbaa nga ne xéewal yu dijj yi ak xéewal yu sew yi mbaa nga ne xéewal yu àdduna yi nga xam ne moom ñëpp la ko maasale ba ci ñi weddee kay mooy sax muy arrahman ak xéewal yu àllaaxira yi nga xam ne koo jagleel rek ña gëman tey topp muy arrahim dafa tàmbalee ci bisimillahi jooju le ndax li yonente bi ne woon mbir mu am solo mu ne suñ ko tàmbalee wut bisimillahi bu am barke mbaa barke ba day manqué mu teg ci sant yàlla mi nga xam ne moom rek ay buur daal di yeesal nag pas-pasu lislaam te mooy seere ne yàlla rek ay buur boo xam ne jaamu ga day am njariñ ñàkk gaa jaamu am lor seere it ne Muhammad ab jaamu la bu mu yónni muy ndawam julli ci yonante bi julli ci mbooleem ñu yàlla yónni te am ndigalul jottali ak ñi ak ñi yàlla waxyu te ñëw leen ngeen jottali ñañu xamal aw yoon te amul ndigalal jottali mooy al ambiya ñañu xamal aw yoon bu ñu war a aw te wax leen ñu woote ca boole ca mooy al mursalo ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp yal na yàlla boole leen teraanga ak jàmm ak képp kuy jéem a roy ci ñoom di rafetal ba bis pénc rek yal na yàlla boole ci loolu amma baax du daal gannaaw sant yàlla julli ci yonante bi fa yaqul dana wax alhamdu jaamu yàlla ba alfaqiru bi aji aajowoo illallah jëm ci yàlla taala kawe na abul xasani abul xasan mooy dàkkintalam xaliyun xaliyu mooy turam almaliki yu kay ko jug malik ashaadili yu kay ko jug saadil xafara yàlla na jéggal allahu yàlla la xoo ñeel ko wali waalidayhi ak ñeel ñaari waajuram wa mashaayixihi ak ay sëriñam wa ixwaanihi ak ay mbokkam wasaa'iri ahli sunnati ak mbooleem ñañ sunna al muhammadiyati say ko jóg muhammad gannaaw sant yàlla julli jant bi day xamle boppam nee na moom ab jaam la boo xam ne yàlla rekk ko ñor ñu koy dàkkantale abul xasan tam tudd aliyu muy muy jaamoo yàlla ci ngirum al imaam malik dëkk dëkk bu ñuy wax saadil mu ñaan nag yàlla jéggal ko jéggal ay waajuram jéggal mbooleem ay sëriñam jéggal mboolem ay bokkam jéggal mboolem ñi nga xam ñoo nekk ci sunu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li wax nag mooy haasiyi lii muqadda matul luñ jiital la boo jàngee muqadda wala muqaddi matul aji jiitu la boo jàngee muqaddi fii masaila ci ay masala min al xibaadaati ci jaamu yàlla yi wa xayri zalik ak lu dul loolee ala madhabil imaami ci ngirum ilimaan ba maalikinte mooy maalik ibni anas yi mi doomi anas raximahu yàlla na ko yërëm allahu yàlla taxalaa kawe na li yen tafeex ngir mu jariñoo bi xaa ci moom alwil daanu gone ya wa naxwahum ak ku mel ne ñoom ci mag ñi ak ku mel ne gone yi ci mag ñi incha allah ndeen soob na allahu yàlla taxalaa kawe na nee na lii day ab téere la boo xam ne maa ko taalif mënees na cee tàmbalee jàng jëm ca kaw nag bu fekkee da ngaa bëgg a jàng fiq andi naa ci xeeti jaamu yàlla yi andi naa ci itam xeetu fiq bi nga xam ne mooy jëfalante ak doomi aadama ci kaw suuf mel ne takk soxnaak faseek jaayam jënd ak miraas kon daal nee na andi naa ci yenn masala yoo xam ne ci wàllu jaamu yàlla la aju waaye yenn itam aju ci jëflante doomi aadama yi ci kaw suuf te lépp nag mu andee ko ci ngirum al imaamu Malik damaa bëgg nag nee na gone yi nga xam ne seenum njàng soriwut ñu mën cee jariñu ak ku mel mag moo xam ne njàngum soriwut it ba tey rek mu mën cee jariñu la xastuha gàttale naa ko min kitaab yi ci sama téere ba al musamma bari buñ tudde woon bi humdati saaliki ci kenn ku aji soobu kennul aji soobu xalaa madhabil imaam yi ci ngirum ilimaan ba malikin malik fil ibadaati ci jaamu yàlla ya waxee di daalik ak lu dul loolu wa sammaytuha te ma tudde ko bil muqaddamati ci muqaddamatu ba yeneen xëy jàng bil muqaddimati ni ma ko xewoon léegi al xiziyati bay ko jóg xizza lil jamaati ñel mbooloo ma al azhariyati may ko jóg azhar mustamilatan mbir mu ngi aji làmboo xala ahada xachara ci fukk ak benn baaban ci ay bunt ne damaa njëkkan taalif téere boo xam ne daa ko tudde woon xumdatu salik ala madhabil imaami malik fil xibaadaati wa xayri dalik téere mel noonu laa njëkkan a taalif ma jukkee ca bii nag maa lii dama ko jukkee ca boobu ba noppi nag sàkkal ko turu boppam tudde ko al muqaddamatu al hiziyatu maanaam téere bu ñu mën a tàmbalee boo xam ne maa ngi ko taalifee ci sama dëkkuwaay ba woon ca keer ca xizza dafa askan téere bi jël ko ci fa mu doon taalifee téere bi ci dëkkuwaayam ba ca keer ca al xizza foofu la ko askan jëmale moomale gi gi mu ko moomalee mbooloo ma ci ashar nag da leen koo dara jaale rek daa am daara joo xam ne moom daa nekk foofu ca keer koy tuddee ashar mu far ko dara jaale ña nekk foofu rek ndax seen njàmbaar ak seen taxawaay ci lislaam rek nde defuñ ci dara moom moo taalif lépp moom jëmmi téere bi nag nee na am na fukki bunt ak benn booy jàng ba ci biir da nga gis ay dog nag ñuy wax faslu dana am ci biir yu bare bari waaye bunt yi ci boppam moom fukk ak benn rek la bu jëkkee rek albaabu li mooy bunt bi ak awalu bi aji jëkk fi taharati ci laab day njëkk a wax laab ndax ndegam gannaaw boo weesoo gëm yàlla julli moo gën a màgg ci lislaam te julli balaa baax laab da ko jiitu kon nag mu njëkk a wax mbirum laab xaala wax na allahu yàlla taala kawe na ne wa anzal naa wàcce nanu mina samaay ci asamaan maa an am ndox taxooran mu di ab laabaa kon suñ boroom nee na man yàlla maa wàcce ci asamaan ndox moo xam ne mu laaba laaba laab la nga xam ne daa daa boole laab ak mën a laabal kon almaaw ndox ak taxooru ma di ab laabaa kon maa mooy ma nga xam ne kaana nekk na taahiran di aji laab fii naf si jëmi boppam mu tahiran tey aji laabal mu tahiran tey aji laabal li xëyrihi ñeelu dul moom damaa il baxri ni ki ndoxum géej wal biiri ak teen wal matari ak taw ida lam yataxayar ndeem soppikuwut cheyun dara min aw saafihi ca meloom ya ak salaasat ya di yet waxi te ñoom al lawnu mooy melowa maanaam couleur ba wa tax ba ak cafka ga war riif ak xet ga bi maa ci loo xam ne yan fakku dana xobbiku mooy dana deñ xanhu ci moom xaaliban ci la gën a bari kan la ba ni ki soow wal xasali ak lem wal bawli ak saw wal xasirati ak ay xayta ndox boo xam ne nee na laab na te mën a laabal boo ko bëggee xam mooy ndox moo xam ne daal melawa soppiku wut cafka ga soppiku wut xet ga soppiku wut ci dara loo xam ne maneesoon na ko moytu ba du ko laal lu mel ne soow joti wuta ndox dara lem noonu saw noonu xayta noonu yooyu joti wuñu ndox luy tax ñu naa mënuñoo tàggoo xakay mën nañoo tàggoo jotewuñu dara lu mel noonu nag balaa ndox laab te mën a laabal day mucc ci yu mel nii yëpp yëpp yëpp de bu fekkee la ko sopp moom yàllaa ko booleeg moom ba lis ko woon a moytu moom du ko yàq daal ñu ko leeral ci kanam waaye nag ndox mi moom balaa nekk mu laab te mën a laabal daal da ngay xool melowa cafka ga xet ga dara bañ caa soppikoo ci loo xam ne maneesoon na koo moytu ba du ko laal moo xam day ndoxum géej nag mbaa day ndoxum taw mbaa day ndoxum teen mbaa day ndoxum seyaan mbaa mbaa sax ni galaas gu ñu bàyyi ba wuruy rek loolu lépp teew koo baax fa in taxayara ndeem soppiku na shay'un dara min aw saafihi ca meloom ya ak talaasati ya di yett bi maa ci la nga xam ne tukkira tuddeef na ko wanax wi ak lu mel ne moom fala yasixu kon du wér alwudoo jàppee min hu ci moom walal xuslu du caa génnu cangaay walal istinjaaw du caa génnu tàncu tàncu moo yóbbu ko ca wana wa dindee ko sobe nee na saa yoo xam ndox ma soppiku na ci couleur mbaa cax ka mbaa xet ci lu mel nii nga xam ne moom ndox amuñu genn jote su boobaa ndox mooma mënta jaamooti yàlla mënta jaamooti yàlla mooy doo ca mën a jàpp doo ca mën a sangu ca ngaayul farata mbaa loolu sunna ni ki loolu ajjuma mbaa lu ñu sopp ni ki loolu xiit doo ko mën a yóbbu wanag ba yàkkamtee bu la neex yóbbu ko ci wana wanag waaye kon na nga fexe ba bala ngaa jaamu yàlla nga awlewaat ndox mel ni ni nga war a jàppe ci kaw cër ba waaye waris koo yóbbu ci wanag mënoo koo fóoti itam yére yoo xam ne daa am sol suñ mënta julliwaale wala mu ta xayru aji soppikoo nag bi taahiri ci aji laab taahirul aji laab la xayru taxoorin waaye nag du ab laabaa kon yustaamalu def na ko jëfandikoo fil aadaati ci aada ya wala yustaamalu te def ko jëfandikoo fil ibaadaati ci jaamu yàlla yi bu fekkee ndox ma la ko soppi day lu laab ni ki kafe dem ca mbaa diw mbaa soow mbaa attaaya ba nga mën ko caa xàmmee ca ndox ma loola lu laaba ko soppi kon mooma ndox moom mën nañ koo jëfandikoo ci wàllu aada mooy boo bëggee naan boo bëggee togg boo bëggee sangu sangum tuwaale boo bëggee fóot yére yoo xam ne amul sobe suñ mënta julliwaale yooyu yëpp mën na ko waaye nag doo ko mën a jaamoo yàlla mooy doo ko mën a jàppee doo ko mën a sangoo ca ngaayu jaamu yàlla doo ko mën a yóbbu wanag doo ci mën a fóoti yére yu am sobe suñ mënta julliwaale wal mu taxayru aji soppikoo nag bin najisi ci sobe najisun sobe la laa yustaamalu def ko jëfandikoo fii shay'in ci dara minal aadaati ci aada yi wala fii shay'in du caageenu ci dara minal ibaadaati ci xeeti jaamu yàlla yi nee na bu fekkee nag la sopp ndox ma day sobe mel ne am saw dem ca sawum doomi aadama mbaa sawum mbaam yooyu nga xam ne seen saw sobe la mbaa xayta boo xam ne sobe la mbaa sàngara mbaa deret joo xam ne sobel yii moom bu fekkee moo soppi ndox ba nga mën koo xàmmee ci couleur mbaa caf ko mbaa xet moom ndox moom jeex na tuur rekk ci des xanaa de mënees na koo wëggi ab jur mënees na koo suuxate mbay waaye mëneesu ko jëfandikoo dara ci xeeti jaamu yàlla yi mëneesu ko jëfandikoo ci wàllu aada ni ki naan mbaa togge mbaa sangoo sangu tuwaale sax mbaa dara ndam la ko defoon sax na nga ko raxas bu fekkee bëgg nga koo jëfandikoo wa isa taxayara ndem soppikoo na bi maa ci loo xam ne huwa moom min xaraari si tukkee na ci ab saxukaayam kat turaa bi ni ki suuf wala mili ak xorom wa nuure si dañ ko daan firee gàncaxuk nuure waaye nekkul gàncax ak nuuratu dañ koy wax xajarul kilsi doju kils di ko wax itam ay njaxase yoo xam ne dañ daan njaxase xoromi calcium ak barium ba mën a dindi kawar na ne boo bëggee wat ba mën koo dindee kawar loolu moo tudd an nuuratu aw maa wala ci loo xam ne tawal la da juddoo na min fu ca ndox ma kat tuxlu bi nit ki mbaalaa mbaal aw bi tool mukk si wala ci yàgg ko sax ga fa innahu naka moom laa yaduru du lor wa yustaamalu def na ko jëfandikoo fil aadaati ci aada ya wal xibaadaati ak jaamu yàlla ya bu fekkee la soppi ndox ma daal moom neexutoo na moytu ni ki fa ndox may taa mbaa fa ñuy génnee ndox ma ca teen ba mbaa seyaan nga moo xong cooy ba ndox ma xong cooy mbaa moo ñuul kukk ba ndox ma ñuul kukk mbaa ndox mi bu walee fa mu wal aw moo soppiku ci xeetu xorom mbaa li ñuy wax an nuura mel ne foofa dafa am an nuura mu doji kilsi yooyu ñu waxoon ak mboolem sax xeeti matière yi nga xam ne moom la yàlla liggéeyee suuf yooyu xeeti matière yooyu bu ñu soppee ndox it du wàññi dara rawante nag suuf suuf moom dañoo jàpp ne moom ndox yàllaa leen boole nga xam ne boo tibboon suuf xëpp ko ci ndox itam du tax ndox ma yàqu xorom it noonu yàllaa ko booleeg ndox moom it moom xorom du yàq ndox su boobaa du wàññi dara bu fekkoon dafa dend ak itam lu mel ne médd ba médd ma xeeñal ko waaye moom laalu ko benn yoon mbaa mu dend ak fu wuude yi defare si dar yi ba tax xet ga naqari mbaa boog loola juddoo ca ndox mi mel ne mbaalaa mbaal mbaa boog ndox mi daal dafa yàgg lool jekki-jekki rek xeeñ waaye kenn ah dara defu ci kenn defu ci dara daal moom daa jekki-jekki yàggaay gi tax rek mu xeeñ yooyu yëpp moom di ca wàññi dara ndax loxo doomi aadama defu ko te mënees ko woon a moytu kon moom ndox na mu sopp ko du tee nga mën koo jaamoo yàlla du tee nga mën koo jëfandikoo ci wàllu aada loo ci bëgg a def rek mën nga ko caa def wa isa waqaxa ndem tabbi na filmaa yi ca ndox ma alxalil yi may aji néew ka aaniyat li wudooy niki ndabi njàpp lil mutawaddi i ñal aji jàpp wa aaniyat li xusli ak ndabi cangaay lil muxtasili ñeel aji sangu najaasatun sobe walam tuxayyirhu te soppiwu ko fa innahu naka moom yasixu dana wér a tatxiiru laabloo wala nga ne laabe bihi ca moom laakin waaye yukrahu def na ko sib isa wujida dem amees na xayruhu mu bokkut ak moom nee na ndox moo xam ne daa yam rekk ci jàpp mbaa mu yam rekk ci sangu ba noppi nag sobe sa ca dem daa néew néew ba nga xam ne soppiwu ko gis nga nga ko gis mu dem ci rek moo la xamal ne moom sobe dem na ci waaye soppiwu ca dara dara moom ndox bu fekkee am nga meneen ñu sib ko bu fekkee amoo meneen kenn du ko sib su boobaa su fekkee mën ngaa meneen ndox moo xam ne dara sobe laalu ko daal ñu sib mii waaye su fekkee amoo meneen kenn sibu ko te itam sib dong la boo koy jëfandikoo du ko tey baax te li wax sax mooy ndox ma daal néew ndax daa yem ci jàpp ci boo dee jàpp wala mu yem ci sangu ci boo dee sangu ne bu doon ndox mu bari moom tuut sobi dem ci kenn du ko caa xàmmee kenn du ko sib sax kon kon bu fàttee néew gi ak bari gi bokku ñu àttee wal maaw ndox ma al mustaamalu ma di muñ jëfandikoo fi lu mu dooy ci njàpp wala ko si ak cangaay taxoorun ab laabaa kon la yukrahu def na sib a tatxiiru laabe wala laabloo bi ci moom maxawu joori xëyri yi ànd ak amuk mudul moom ndox moo xam ne ba ca koo koy jàpp da ko doon tiimale mbaa ba muy sangu da ko doon tiimale ci dara ba mu noppee na ñu xool ndox ma dara sikku ja mu mel ne ma nga doon xeele ci robinet ba ndox mel noonu nee na sib nañ ko bu soo amee meneen soo amul meneen moom baax na soo amul meneen baax na waaye soo amul meneen moom ñu sib ko daa fekk nag njàpp ma nekkoon dëgg-dëgg njàpp nga xam ba ngay jàpp da ngaa toj la woon mbaa ca ngaay nekk ca ngaay farata ni ki amee janaaba wala jigéen ji deretam jeex lu mel noonu nga xam ne ci gaay la farata la ba muy sangu nag mu tiimale ko bu noppee nag boo xoolee ndox ma mu set wecc ndax daa fekkoon yaramam set moom nag moom ci boppam mu koy jëfandikoo waat mbaa keneen di ko jëfandikoo waat ci njàpp mbaa sangu daal moom sib nañ ko ci kaw nga am meneen sax ne bu fekkee amu meneen moom sib nga du ci am wa fil mustaamali nekk na ci ndox mañ jëfandikoo fii xëy yi ci ludul loolu kal mustaamali ni ki mañ jëfandikoo fi tabarrudi ci serlu ci yaram rek mooy seral aw yaram waxus lil jumuati ak calaal ajjuma xawlaani ñaari wax bil karaaxat ci sibga waxa damiha ak ñàkk sibga bu fekkee ndox ma ba ci koo koy jàpp mbaa bu ma cee sangu njàpp ma du woon njàpp mu tojlee da doon yeesal rek am njàpp mbaa daa fekk rek mu tàng mu ne woon naa jàpp ndax saa yaram sedd mbaa bu ma cee sangu daa fekk ca ngaay la ca ngaay sunna mel na ca ngaay ajjuma mbaa ca ngaay korite tëbsi nga xam ne ca ngaay lu ñu sopp la yooyu moom neen dañ caa wóote am nañu ne bu fekkee da ko doon tiimale te ba mu noppee boo xoolee doo gis dara soppiku ca du teel ñu sib ko mel ne ba muy njàpp dëgg-dëgg ak ba muy cangaal dëgg-dëgg ñeen ñu ni déedéet ndegam moom njàpp mi du woon njàpp tojle cangaal du woon cangaal yu farata kon kenn wërtu sib ndox moomee wax ji gën a wër nag mooy kenn du ko sibati jooju wax lañ sukkandikoo fas lu li ab dog la te wax ci dog bii nag yi nga xam ne ñoo laab ak yi nga xam ne laabuñu ndax ndegam nee nga ndox bu fekkee lu laab moo ko soppi des na ko mën a jëfandikoo ci aada ni ki togg mbaa sangoo sangu tuwaalit mbaa naan ah bu ko sobee soppee moom wacc tuur rekk ci des kon war naa leeral lan moo laab ak lan moo laabut kullu xayin jëpp aji dund foofu woo moom taahirun aji laab la aadami yen moo xam ne doomi aadama aw xayruhoo mbaa muy ludul moom wa kazalika naka noonu xaraquhoo ñaqam wa wa loxaabuhoo ak loram wa wa muxaatuhoo ak aw ñand xiitam ñand xiitam wa damuhu ak rongoñam wa bayduhu ak nenam lépp li dund daal dañuy jàpp ne ko mi ngi dund rek moom laab na moo xam ne doomi aadama moo xam ne leneen ba tey buñu nee luy dund laab na ñaq wa bàyyi ko ci moom mbaa lor wa mbaa ñand xiit wa mbaa rongoñ ga yépp ba tey laab na nga xam ne fekkoon ne kenn ci yi moo soppi ndox dañuy jàpp ndox ma la ko soppi lu laab la mën nga ko jëfandikoo ci wàllu aada ni ki togge mbaa naan ngi demee noonu xayral masiri ndare nen bu nëpp bi daali ci daal ga al mojamati ga di buñu tomb waxuma moom al mutaxayiru mooy aji soppi ko ja al muntinu ja aji xeeñ nen moom bu fekkee dem na ba nëpp ba xeeñ moom léegi sobe la fu mu la taq doo ko mën a jiliwaale te bu soppee ndox ndox ma yàqu na tuur rek moo ci des bu ñu nee lépp yu dund rek laab na mooy lépp yu dund kon te taqul sobe mën ngay julli yorewaale ko te du tey julli ga baax ba tey nag bu ñu nee ñaq waag ñandaxit yaag lor yaag yépp laab nañu kon bu la taqee nga julliwaale ko du wàññi dara bu soppee ndox itam waxan nan ko léegi waaye nag jàppal ne loolee kat bu xasee médd te fekk mu am deret joo xam ne boo ko jamee mu sotti ko léegi sobe la doo ko mën a julliwaale misaal ba tey mën nga koo misaale teeñ ci lu gën a gaaw a xam teeñ daa am ñu wax ne amul sax dereti boppam waaye danay naan dereti jaambur kon nag am na deret joo xam ne boo ko jamee mu sotti ko kon bu xasee médd sobe la kon fi mu toll nii teeñ yi nga xam ne mooy dund mën nga koo julliwaale te teeñ yi nga xam ne ñoo dee doo leen mën a julliwaale wala banul aadami yi soom doomi aadama fii xaali xayaati yi ci waxtu dundam nga taahirun aji laab la doomi aadama bu dee dund am soom laab na li gën a wër sax mooy bu faatoo itam sooma laab na ndax doomi aadama bu faatoo téewu koo laab kon soomay génn ci moom bu faatoo wax ba gën a wóor ba day laab na xam bu la taxoon du aajowoo dindi mën nga koo julliwaale bu soppi woon ndox it ndox ma dana baax wala banu mu baaxit ak li soowam lu ñu dagana la lekk ba tey taahirul aji laab la kal baqari ni ki nay wal xanami ak gàtt yi wala ibli ak gëléem yi bu yoon ne nangam day dagan naa lekk mel ni nag wala gàtt yi xar ak béy wala gëléem kon xamal ne am soowam ba tey laab na laab na ci lekk laab na itam ci bu la taqee nga mën koo julliwaale bu soppeem ndox itam sopp ko na ci lu laab rek mën nga koo togge mbaa naan waaye mënu koo jaamoo yàlla naka wa kasaalika naka noonu bawluhoo bawluhoo sawam ma war a jiixoo ak neefareem wa maalam yataxasa li feeg du añe dina gisin ci sobe bu ñu nee nangam dagan naa lekk te moom du lekk sobe te ñu jàpp ne kon saw ma laab na ay neefareem laab na mel ne bu ñu nee xar ak béy dagan nañoo lekk xamal ne kon dégam xompi woo leen rek sobe teg ci sa bët joxo leen sobe ñu naan teg ci sa bët dañu jàpp ne kon seen neefare laab na seen saw ba tey laab na loolu moo tax ñu mën a naan mbéeru mbéeru mooy xar mi saw ñu dékk ko mu jigéen lañ koy ëpp def dékk ko daal koy naan di ko fajoo bu dee lekk bu dee nag luy lekk sobe dana ko wax ci kanam mel ne ganaar wala wala wax ji ñuul yooyu dañuy aajo dañuy lekk sobe yooyu moom bu fekkee yeewoo leen ci benn béréb bi leen xonte lu laab bàyyi leen rek noonu ñu dem ak a dikk duñ xam ba xam lekk nañu sobe mu det kon su boobaa seen saw ak seen xayta yépp sobe la wala ba nu xëy di xaa soom lu dul ñoom nag taabixun aji topp la li laxmihi ñeel yàppam wa famaa loo xam ne xaruma araam na ak lu laxmihi lekk aw yàppam fa la ba nu am soowam na ji suñ sobe la kal xayri ni ki fas yi wala bixaali ak baxla yi wala xalmiri ak mbaam yi wamaa loo xam ne itam kuriha sibeef na ak lu laxmihi lekk yàppam wa kas sabu hi ni ki ndegment ndegment mooy rab wuy fàdd fala ba nu am soowam makruh lu ñu sib la nee na loo xam ne nag moom dëgganut a lekk yaar la benn mu araama lekk mbaa mu siba lekk bu dee lu araama lekk moom xamal ne am soowam sobe la mel ne fas ak bax la ak mbaam dañoo araama lekk fas am na wuute waaye bu dee ci yoon maal yi moom araam nga lañ jàpp kon su boobaa soow ma sobe lay doon bu la taqee doo ko mën a julliwaale bu soppeem ndox ndox ma sobe ko soppi say boo tuur ko bu dee luy siba lekk nag mel ne muus wala siiru wala beneen dañ ment dañ ment mooy rab buy fàdd rek yooyu bu dee ci yoon maal ñu ko siba lekk rek mel ne bu doon gaynde wala till yépp rek loo ci xam ne am soowam taq na la dañoo sib rek nga julliwaale ko woo maytatuma meddum loo xam ne laa naf sa déedéet la xooññel ko saa ilat muy aji yol kat dubaa bi ni ki weñ wa nam li ak ay xorondoom wa dóoli ak ay sax taahiratun aji laab la loo xam ne médd na waaye amul deret joo xam ne boo ko jaman mu sotti ko mel ne weñ wala xorondoom wala sax wala aw mbóot wala jiit yu mel noonu moom bu xasee médd itam téewu koo laab laab na nag waaye du laabug lekk ndax bu dee lu ñu sartu ñu rendi ko te rendiwuñ ko des ko mën a lekk mel ne tey boo fekkoon sam soow wala saw ñam kenn ci dee ca tag mën koo seppi faaw da nga koy seppi saani waaye doo ko sañ a lekkaale laab gi ñuy wax kay mooy laabu bu soppi woon ndox ñu xam ndox mi lu laab rek ko soppi loolu njublu ci googu laab waaye laabu lekk gi nag moom day aajo woo ñu rendi ko moo tax xëy na nga ne waaw aw sax lu ñu koy rendee mbaa xorondoom lu ñu koy rendee dañ lay wan ne la yooyu moom loo ko def te jublu ci rendi rek mu daal di koy doon mel ne sax bu fekkee sax wa daa juddoo ca doom ba mel ki doomu gerte mën ngaa jékki-jékki yéeg ko rek noona te jublu ci rendi ca yéegam ko yéeg mu daal doy sëkk waaye boo ko fekkoon mu medd rek noonu nag moom jëmm ja laab na ci boo ko julliwaalee mu nekk ci sa yaram mbaay sa yére du wàññi dara laab na ci bu nekkoon ci ndox ndox moom la ko soppi lu laab la ndegam moo da ko soppi waaye laabul nag laabug lekk loolu aajo woon a teqali foofu bu ñu nee nag laabul laabug lekk nga fekk ko ci saw ñam te neexut a teqaleeg ñam wa mel ne nga fekk ay mbóot yu sew a sew wala ay sangleeñ mu dee ci la nga bëgg a lekk mbaa la nga bëgg a naan bu ñu ko mënee seppi moom ñi ngi ko waxe woon faaw da nga koy seppi mu des nag bu fekkee mënusu koo teqaleeg ñam wa kon dañuy seet ba xam ku xool ñam wa ak sangleeñ yooyee ca daanu ci misaal lu ci ëpp bu fekkee ñam wa ëpp kon sayo ba lekk ñam wa te lekkaale sangleeñ ya bu fekkee da ngay gam-gamle ba xam ñam wi ëpp mbaa sangaleeñ yaa ëpp ba tey noonu sayo boo lekk ñam wa ndax ñam dafa jafe kenn du ko wàcc ci kaw sikki sàkk dong bu nu wóori nag ne loolee ci dee ni kii sangalee ñi nga wax mu ëpp ñam wa nag su boobaa da nga koy tuur doo ko sañ a lekk fas lu li ab dog la maytatul aadama yi néew doomi aadama xaril ambiyaa yi dara yonante ya najisatul sobe la daa wax ne doomi aadama su xasee faatu léegi sobe la ba mu des na abonante abonante moom bu faatoo itam teew ko laab waaye wax ji gën a wóor mooy doomi aadama moom bu xasee faatu itam teew koo laab na ko yàlla terale woon rek noonu la ko terale ba tey moo tax mu naa waqad xalimta mimma taqaddama anna raajiha taharatuha wa anna alxayaata xalafatha illatun uxra wa hiya alsharafu fa sharafu aadamiyi xalafa xillat alxayaati doomi aadama dund kese yi du dong mooy teraangaam yàlla da koo may teraangam doomi aadama goo xam ne mooy wuutu dund ga bu faatoo itam wa kasaaliki nii baytatuma méddum loo xam ne lëxoo ñel na ko nafsun deret saa ilatun jur aji yol kal xamlet ni ki aw teeñ alal mashhur te la ñu siiwee wal burxuus ak aw fel ina ibnul xasaar yi fa ibnul xasaar bokk na ci sobe yi lépp loo xam ne nii daa médd te fekk mu am deret ju sottiku loo xam ne nii moom amul deret ju sottiku ni ki weñ baa xorondoom baaw sax moom ne nga woon bu méddee itam laab na lu bokk te loolu na nga xam ne am deret ju sottiku moom te gis nga ni baree ganaar ak xar ak bëyeeg yi nga xam yépp kañ am deret rek buñ xasee médd sobe lañ ba tey lu génne ci ñoom gannaaw bañ méddee moo xam rongoñ la moo xam aw ñaq la moo xam deret la moo xam ab nen la ba tey sobe la wama loo xam ne ubbi na faccaleef na ko dindeef na ko dangeen xay yi ci aji dund awil mayit wala aji dee mim maata la nga xam ne taxul luhoo dana ko wàcc alxayaatu dund ga kal xar ni ki béjjéen wal xasni akub yax wal zuhri ak we wal juldi akub der ak aw der najisuñ sobe la ba tey nee na luy dund loo ca dagg rek loo xam ne boo ko di dindi muy metti ci moom loolee boo ko dindee ca moom sobe lay doon na nga moytu lekk loolee mbaa julliwaale ko ak yu demee noonu mel ni xam nga ne béjjén liy dund boo koy dindi ci moom muy metti wala bu yax wala we wala der yooyu yëpp bu dee dund boo ko dindee ci moom itam xamal ne sobe la mu ne ne gàllaaj la bu tax nga def ko gàllaaj ndax kon doo ko mën a julliwaale te it sobe suñu su koo gàllaajoo ba tey it boo doon dóor ak ganaar baa nga di ko ñoddi rek fara lupp ba suqiku itam lupp ba suqiku lupp boobee doo ko mën a lekk ba dara ndax ma nga bàyyi ko ci luy dund wala boo doon dóor lu mu ne am xar mbaaw bëy baa nag ab morso dagg ca rot morso boobee lu mu rëy rëy dooñ daa koy lekk ba daa koy def leen sobe dong la sànni rek ca des bu dee nag loo xam ne bu dee dund boo koy dindi ci moom du ko yëg mel ne booy jàpp ganaar dongu ndaw yi nga xam ne mooy ruuf ci say loxo wala boog nga xam ne bu dee lu am kawar mel ne xar wala bëy mën ngaa dem daal di jël ab siso siso kawar ga te du ko yëg du metti lu mel noonu moom lu laab la boo ko ci dindee mën koo jëfandikoo mën ngaa wat rek kawar lu am kawar te fekk mu dund daal di koy jëfandikoo lépp loo ci xam ne ku ne dund boo ko ne dindi du metti rek soo ko ci dindee mën koo jëfandikoo nga ñëw ci médd mi médd mi nee nañ la lu am deret ju sotti ko rek bu xasee médd sobe la xamal ne kon loo ci dindee moo xam tànk baa moo xam yax baa moo xam béjjën baa moo xam wewaa yooyu yëpp sobe lay doon waaye nag la nga xam ne ba mu dund boo ko ci dindi woon du metti ci moom nee na kawar gi ma la wax léegi boo ko doon xóof ba tey bu dee borom dungu bu muy sew ya nga xam ne ba mu dund boo ko doon jàpp bu jekkee ki rus saq la te bu metti ba tey mën nga koo jëfandikoo waaye nag dungu ya nga xam ne moo sax ci deru yaram wa wala bu dee borom kawar gi la sax ci deru yaram wa bu ko seen métti moom léegi sobe lay doon ndax ba muy dund boo ko doon dindi muy metti kon nag nga jàppaale ne bu ñu nee nangam moom méttam laab na ni ki lu amul deret ju sotti ba kon la bàyyi ko ci moom ba tey laab na